alxuraan du ay jaaxaan yow ñàkk nga fay da waay sëyu jàmmoor lan moo ci seyoon lan moo ci seyoon suñuy bisu ngoone di lan moo ci seyoon ca mariage bu taseeg bu tasul lu ciy seyoon li mu joteeg jëkkëram lu ciy seyoon sa yoon newu ci biisu sey na fa war a sëye def na la mu war a def yàllaay boole ñaar ñuy ànd ak ñaar ñuy tàqalikoo yàlla moo bind loolu sa yoon newu ci te nga bàyyi sa waat yeeg sa duul yi nga nekk sa fen yi ci internet bi te nga bàyyi biisu ngoone nga lijjanti sa yaay ak say bokk réew nga trop ah dof nga quoi kañ ngay trouver solution yow yow yow yow yow.